رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى السلام على رسول الله نيو نيو nuyu mbokk jullit di ñaan yàlla programme bii ñu jub yal si yàlla def tawfiq ci barke alquran benn mbokk boo xam ne mu ngi nekk ci daara bu ñuy wax daara abu moussa al ashari ñu fas ne ñun tamit incha allah indi suñu participation ci musaabaqatul quran bi nga xam ne dinañ ko def incha allah nañ fa indi suñu candidat muy xale bi doon jàng léegi nii ñu koy wax Jibi Jaaxo moom mooy représenté incha allah daara Abu Moussa al Ashari ñu ngi siy woo parents d'élèves yëpp waaye tamit ñu ngi siy woo mbokku jullit yëpp ñu ngi siy woo Pikine yëpp incha allah ñu taaral bis bi lislaam jëm kanam alquran am ndam salaamaaleykum wa rahmatullah